normalement làmb war na fa am mais est-ce que Tapha Tine ni masse musculaire bi yokkee vitesse d'exécution bi dina ànd ak moom mm-hmm. te kuy bëri Balla Gaye war nga xam ni waroo yéex rapidité boobu vitesse d'exécution boobu bu amul rek da ngay am problème man je pense que Tapha Tine li mu préparé dootul pour làmb rek parce que forme bi làmb rek xanaa soxla am na leen lu mu bëgg def làmb <laughs> benn mi ngi defee entraînement yoo xam ne mooy di ko permettre masse musculaire bi ànd ak doole ji ànd ak physique bi mu nekk un peu plus tôt sur lu jëm ci la proprioception boobu ak euh, motricité bi ma doon wax sànq nga gis ko ñu gis ko mu muy def musculation génn dem ci piscine bi génn masse bi mhm. saillant mhm. ba pare yor ay marteau di def ay pneu bëgg nañ yaram bi am rapidité ak explosivité boobu mais combat bi moom moo ko war a diriger bu bëggee am ndam combat bi bu bëggee daan da koy diriger. bal du ko bal du ko may. est-ce ko may nag loolay wax ji foofu la wax ji mais moom moo war a diriger round d'observation bi du yàgg na ko jiitu ci maninam mu diriger combat boobu noonu parce que bu taxawee xaar ko rek mën na ko juumloo. Hmm. moom it buy jóg wala di jëli na xool fan lay jóge jëli parce que bal dafa aay ci loolu da koy déjouer donc donte ñëpp nee nañ ils ont pris de l'âge changé nañ yaram yi feebaroon nañ wér nañ mais attention. Hmm. attention donc ma li tafaatin na indi. surtout surtout surtout concentration. concentration mentale. open open press mu ngi ko koy wax. ko mhm. yaa ngi dindi stress. daf koy liir. mu mhm. nga nit bu ñu la waxee sa gént da nga yéem da nga naan kii fan la jaar wala dara. mu ngi koy wax peut-être loo xamante ne. mais est-ce que nekkul ne maanaam dafa fugg fugg bi moo tax. fugg bi la léegi nag fugg boobu bis bu ko bëree. da ngay daanu fugg kenn du ko bëree. ak humiliation sa adversaire dama lay humilier non non adversaire kenn du ko. mais xëy na xëy na gis na boppam xool na. xool na gis na gëm na boppam par rapport ak ki nga xamante ne moo di le lutteur ah. Balla Gaye xool différence bi nga xamante ne. am bi muy def noonu na ànd ak rapidité ak vivacité ak vitesse d'exécution. Mm. waaw am cardiovasculaire bu baax mën a tirer combat bi à longueur yóbbu ko à l'usure mm-hmm. mais bi ñu fekkee gis nañ Balla Gaye ci deux derniers moo ko ki nga xamante moo di Gris euh, ak euh, Boy Niang mais indi na poids ñëw na gars yi poids boobu da ko ci porte mais cette fois ci dafa ñëw da nga koy fàttaliku contre Eumeu ba ak contre bëgg na jóg wala def dara da ngay gis lenteur bi nii mm-hmm, mm-hmm. da ngay sentir coordination bi ak yaram bi ni mu amee lenteur day ah. yéex uh-huh. mais cette bi nga keroog face à face bi masse bu mu indi mu indi maanaam poids bu mu indi gis nañu wàññeeku trop trop il a fait un peu pour faire la transformation de la masse graisseuse en masse muscle hmm. muscle sec loolu ngay xaw a gis tuuti parce que gis nañ ko mu ngi koy liggéey mais yenn masse yi boo ko xësee bu jël na nga fexe tout tout tout pour que say action pois yi poids bi mën ko attan hmm. action yi dañu attan pois bi da ngay xool ku mel ni Mialo bi nga xam ne moom li ñu jëm nii muy Jeux olympiques yi hmm. bi muy préparé wu ci ay soulevé de terre ak arraché yooyu li tax ñu doon commencé cent kilo dafa amoon benn yëkk bu ndaw nag saa yu xëyee nag bi lay jël di foog moom di ko yëkkati moom ni muy màggee nag bi noonu lay màggee bi mu demee bay màgg bi mu nekkee cent kilos dafa téye ci corne yi braqué ko mu jóg constance assiduité continuité mooy def loolu. Mhm. pour nga attan poids boobu sa yaram dafa war a attan sa xol xol bi attan poids bi. Mhm. mais benn bu ci am défaillance day day feeñ. da gis mbër boo xam ne du sonn mais amatul doole. Mhm. da ngay gis mbër bu am doole. gaaw sonn amu ko dafa gaaw sonn. Mhm. donc il faut allier cardiovasculaire. Mhm. ak cardiomusculaire boobu. donc nag Balla loolu ci ni mu daan bëree Balla bi bëree woon ak Issa Pouye Balla bi bëree woon ak Saloum saalum Balla bi bëree Ousmane Diop est-ce que mën na nekkaat. bu mm. revoon yàlla xam. yàlla xam. il faut que loolu ñu jël ci comme comme Eumeu seen comme ni waxee constance boobu rek. hygiène de vie am na foo xam ne dootul doole dootul xel. hygiène de vie xel la ak hygiène de vie. effectivement hygiène de vie moo lay complété loolu. Greg si si duel boobu Tapha Tine Balla Gaye 2